salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw bañ leen nuyoo di am contentement ak mbégte janoog yéen chaque jour ngeen indi li gën a fës ci bopp làmb te noonu nag damay nuyu ñëw feggool ci plateau bi rek daal di leen ñëw jukki li gën a fës mbay nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk yépp ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam di nuyu bu baax a baax waa Njaareem sama dëkk Assane Waalo nuyu naa la Ndeye maa ngi lay fay di nuyu internet moo ko doon nag revue bi Urijador moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV mercredi 31 mars 2021 journal suñu la moom xëyee ci xëtam bu njëkk Ipongaare sur le choc du 4 avril Eumeu Sène tay si nga favori Mbaye Babacar suñu papa Ipongaare moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal suñu làmb moom bi ko journal bi dékki dénki dékki micro euh, laaj ko ci combat boobu war a am le 4 avril diggante Eumeu seen ak la de Guiers li mu xamle Assane nee na Eumeu Sène moom mooy favori loolu xalaatam dëgg la Mbaye Babacar Diaponghary borom yàgg na yàgg na tey moo euh, xëy àddu ci journal suñu làmb mu wax ci diggante combat bi war a dox ci Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers 2 moom nag nee na Eumeu Sène moom mooy favori ci combat bi nee na mooy favori ndax moom xas na daane Lac de Guiers rek def na ko favori nee na Eumeu Sène mbër boo xam ne nii mbër bu difficile la boo xam ne nii dañ ko mu nga bala nga koo daane di nga daj waaye ba tey pour Lac de Guiers 2 nee na de Guiers 2 doit pas calculer nee na de warul calculer ndax durée combat bi ci moom la dépendre souvent day téye boppam te war na cette fois si mu libéré wu. su combat bi yàggee rek ci Lac de Guiers la dépendre. oui d'habitude Lac de Guiers moom mooy yàggal combat nee na daal bu yàggee combat bi du yàggee ci Lac de Guiers ndax Eumeu Sène souvent day attaqué. ma nga noonu nag Ama Baldé persiste et signe je suis plus kooku di Ama Baldé sëll bu ndaw ba ca Pikine lam xam ne mooy juróom-ñaari Modou Lo moo leen mën Mbaye Babacar loolu la Ama Baldé wax euh, doomu Falaye Baldé bi nga xamante ne bii ma nga fële ca Pikine war a jàkkaarloog le roi des arènes Assane incha allah nee moo mën Modou juróom-ñaari yoon ba mën ko koy toggal dëgg la Mbaye Babacar Ama Baldé comme ni nga ko waxee tey mu dikk ci journal suñu laam moom nag nee ne Ama Baldé persiste essaye plus sept Modou Lo comme ni ko Ndeye Mbacke waxee Ama Baldé nee na juróom-ñaari Modou boo leen tegee moo leen ëpp doole waaye nag wax na lu tax mu nekkoon ci boobu ba léegi kenn gisu ko nee na mi ngi woon ci ruxam di entraîner rien que pour am victoire ci contre Modou Lo nee na nag euh, moom moo doon laaj Modou moo ko doon dëkk léegi nag jox na ko ko nee na wax ji jeex na léegi daal jëf moo ci des. Mar lu waaye doon jaay dina lamb. combat du 10 avril a Thiès face to face Safi Dieng ak Ousmane Gandigal se défie ce soir Mbaye Babacar. combat boobu la Thiès la war a am incha allah le 10 ki nga xamante ne bii moo di Ousmane Gandigal war nañoo jàkkaarloo xas-xasloo ku ci nekk wax li nga war a andi incha bu ci yàlla andee le 10 avril. dëgg la Mbaye Babacar combat di promoteur bu nekk ci Thiès moom moo ko tëgg tey nag ñu war a def amal benn face à face ci diggante ñaari mbër yooyu face a face bi mu ngi commencé ko prévoir à partir de 18 heures. ci benn lieu bu naan sans prestige foofa sa Thiès ñaari mbër nag war na fa ñëw xas wax lalan naat si combat si date bi nga xam ne mi ngi war a am le 10 avril foofu sa Thiès. ma nga doon naa ah, Frazier secrétaire général des lutteurs du Sénégal Matar Ba nous a donné 10 millions Mbaye Babacar nee na fukki millions la ne Matar Ba jox. Fazier moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi moom mi la nga xamante ne bii moom mooy secrétaire général mbër yi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ci Sénégal nee na ministre de sports Matar Ba yëkkati na lu toll ak fukki million jox jox leen ko ñoom seen association boobu la dëgg la Mbaye Babacar Frazier ni nga ko waxee moom mooy secrétaire général association lutteurs yi nga xam ne ni ñoo nekk di Sénégal ëmb ñoom Gris Bordeaux ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo mm-hmm. moom nag euh, waxtaan bu yaatu la seq ak journal suñu lamb nee ne Matar Ba yëkkati na 10 millions jox ko seen association loolu nag mi ngi xewoon le 22 mars bi passé nee na boobu la la ko jox waaye lu tax mu wax lii euh, journal bi ko doon interview daf ko laaj est-ce que seen euh, audience bi amoon ak ministre Malick Sall ndax Malick Sall daf leen a jox 10 millions mu ne non Malick Sall mos leen a jox 10 millions Matar Ba plutôt moo leen jox 10 millions wax na également ci audience boobu xam nga audience ba ngeen di ban pare ministre bi daf ne euh, mbër yi dañ ko sàkku ñu. Euh, pour gis président pour gis mm-hmm. président wala mu nekk président seen association moom nee na weddi ne ko. Mm-hmm. ndax Xalim Samb moom moo doon jël parole mm-hmm. wax. ministre bi mbër mën nga nekk seen président association waaye war nga leen wutal également audience ci Macky Sall donc du mbëri ñoo ko laaj waaye Khadim Samb moo ko fa wax. Mm. kon leer na. kon loolu leer na mu nga noonu. gala dem lu simple leen jëm à Nangaan Samb vingt vingt neuf ak trente mars bii passé Doudou Sané haute la main mu mel ni kooku di Doudou Sané rek daa jaabal jale Joal ak Nangaan Mbaye Babacar. waaw mi ngi noonu Doudou Sané gannaaw ba mu jógee fële ca Joal Fadiouth dafa jàll fële ca Ndangaan Samb xam ngeen ne moom moo jëloon Joal wante dafa jóge Joal jàll Ndangaan ba mu jàllee Ndangaan tamit moom moo jël làmb jooju mu mel ni diggante euh, dimanche ak lundi Doudou Sané baax na Assane. dëgg la weekend du 29 au 30 mars 2021 euh, am neex na Doudou euh, dafa jël tournoi bi Joal. Mm-hmm. ëllëg sa mu jàll. Ndangaan Ndangaan Samb. ba mu demee nag mu daane fa El Hadj Sidi Ndiaye final bi mu ko daanee am na fa cent mille ki mu daanee di El Hadj Sidi Ndiaye am 500 mille. Euh, léger yi nag Pape Waly Niang moom moo ko jël moom moo daanee El Hadj Mamadou Wadji final moom ñi nga xam ne moom moo jël léger yi am na 250 mille ki mu daanee ci léger yi am na 195 mille francs. ci njàngat njàngat bi ñu mën a def ci euh, gala bi amoon foofu ca Ndangaan mooy dañu gis ñi ñi ñi bëri woon hmm. ki jëloon luur bi Joal. ak ki nga xamante ni bii moo jëral lase bi Joal ban xëyee dem ndàngaan ñoom ñaar ñoo final waat foofu. mu mel ni ñoom ñaar dañu confirmé bi ñu demee ndàngaan. wax nga dëgg Baye Babacar dañu confirmé Doudou Sané moom moo jëloon poids lourd yi foofu ca Joal. Mm. amoon le dimanche 28. Mm. El Hadj Sidi. Ndiaye Ndiaye jël léger. sa lëg lundi ñu dem ndàngaan sànq. ñaar ñooñu ñu dajee final moo xam ne ni dañoo dañu confirmé. mu nekkoon combat bu metti ba nga xamante ne bii li nga xamante ne moom mooy ay avertissement boo leen tàggale. parce que ñoom ñaar du ñu bëre ba temps bi jeex kenn mënul daan sa morom. Mm. ñu jox Doudou Sané par victoire bi par averti. Mbaye Babacar yow sa caméraman man pour daw ngeen ko teewe ngeen ko wax nga dëgg comme combat bi jeexeewul ci jël. ci mm. avertissement la la la jeexee. Mm. pour dire rek que ne léger yi ak ak lu même pois la. Euh, technicité bi benn la bu ñu dajee ñoom ña euh, chaque fois day neex. mu ngi noonu ba léegi lutte simple la ñuy desandi ah lutte simple à Diofior 28 29 mars Obali net vainqueur Mbaye Babacar. ba léegi ni ngi ko waxee Ndeye Mbacke dañuy des ci li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple bi nga xam ne fan yi amateurs yi dañ ko bëgg lool te promoteurs yi tamit jox ko bopp fële ci Diofior ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Ibou Ndiaye Obli même jour la woon da ba ñu jógee Ndangaan dañoo jàll Diofior même jour Ibou Ndiaye Obli dem foofu moom tamit def fa lu rëy jël li nga xamante ne bii moom mooy poids lourd ba ci noonu mooy nuyu laal yoon borom Mbour Géej ndax moom tamit ku bëgg bëre simple la di ko topp saa su ne. dëgg la mooy Babacar Obali ginnaaw bi mu daanee franc ci gaal gi ci dimanche lundi bi dafa dem Diof yor dëkkam. xam fa demee mu participer ci benn euh, tournoi ba mu demee kii la daan Babacar Seck la daan final ba mu daanee nag am na ñetti nag ak 10 euh, 000 benn enveloppe bu 10 000. Uh-huh. waaw les léger yi Babou Sarr moom moo fa daanee Abdou Diouf euh, Babou Sarr mi am na benn nag ak 60 000 ki mu daanee final am na benn nag ak 10 000 francs CFA. damay dégg ñu naan euh, am am ci nag lay tàmbalee boo amee nag rek jàppal na yaa ngi commencé am alal. waaw nag gis nga day mm. ko amee yow mu nekk xale bu lingeer mën ngaa confirmer loolu. xam nga ndax denc nga ay nag. na <laughs> mu ngi noonu. contre 16 21 à Ziguinchor nga xam te ni mooy Boy Ndiago Junior triomphe dafa mel ni foofu mu fa jël raw gàddu ga Mbaye Babacar. Boy Ndiago Junior mii moo jàpp ki nga xamante ne bii mooy 16 21 16 21 nag dafa mel ni euh, ay genre camion yooyu la de moom la mbër bi tuddee boppam xam naa mbër bi warul doon mbër bu ndaw 16 21 euh, Boy Ndiago Junior moo ko daan foofu la ca Ziguinchor. dëgg la ko waxee Boy Ndiago Mangakunda moom moo fa daan 16 21 bu Ziguinchor c'est-à-dire ko fekk si daane ko hmm. am na yeneen combat yu fa xewoon également Tafatine bu Ziguinchor moo fa daan Sekouba Kamara bu Mangakunda Modou Mané bu Diagno moo fa daan du Modou Mané bu Leewtoo du bu Leewtoo ah, ok damaa foog ne Modou bu Leewtoo la bii bu Diagno la moom ah, moo fa daan booy Mankaañ bu kene kene ma hmm. ma nga doon nag ba léegi ci combat bi dana dox ci diggante la da ngeen ëmma seen ba ñu demee fii ca Ndar Géej micro trottoir leen ndar ndar doon ëmma seen comme favori Mbaye Babacar ndar-ndar yi ñoo wax loolu bañ leen dékkee micro euh, suñu làmb def ci gëstu bu yaatu euh, dékk leen micro laaj leen diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers wante ñoom li ñu xam ne nee na nag seen euh, Sène moom mooy favori ci boobule combat dëgg la may Babacar comme combat bi le 4 avril la journal suñu lamb bés bu xëy dañuy présenté benn micro tour quoi def ko ci dëkk yi. tey nag bu Saint-Louis la ñu présenté nee na leen ndar ndar doon ëmma seen favori jox na ci ay nit kàddu ñu wax yi kii Younous la Younous benn vendeur journaux la moom nee na ñaari mbër cinquante cinquante la amul ku ci nekk favori ku nekk am nga cinquante pour cent pour nga ma nga nga de probabilité pour nga daane sa morom. am na également Oumar Kandé kii moom benn enseignant la moom li wax moo ne. Lac 2 doit euh, euh, doit une revanche à ses fans moom nee na rabi Lac comme dafa euh, daane woon ci kii point mhm. wala ci recours après recours Boy donc war na benn revanche war na ko yoral euh, na ko daal ay fansam fansam yi mhm. am na également Habib Touré benn charretier la maanaam lay dawal charrette Eumeu Sène est supérieur à son adversaire moom pour moom Eumeu seen moom moo moom moo supérieur tuuti wala moo nekk def ci kanam Lac de Guiers 2 am na fa également Mbaye Diagne Mbaye Diagne moom benn communicateur traditionnel la. Uh-huh. moom li wax nee na le premier qui commettra une erreur le paiera cash. nee na ku ci njëkk def erreur rek di nga ko gis. ku ci mujj muy Sidi Si ki moom benn tailleur la nee na Eumeu Sène est largement favori devant Lac de Guiers 2. Uh-huh. ayca. ngi noonu ci loolu la ñuy ba léegi combat boobu dox ci diggante Lac de Guiers Eumeu Sène. des centaines de policier et sapeurs seront mobilisés mu mel ne suñu père Gaston Mbengue rek daanara indi jumtukaay yu mat sëkk ngir kaaraange ñi fay ñëw Mbaye Babacar. waaw noonu nga ko waxee waxee Ndeye Mbacke noonu la suñu papa Gaston Mbengue mi nga xam ne moom moo taxawal boobu le combat Lac de Guiers ak Eumeu Sène euh, démb mu mel ni mi ngi doon euh, def benn benn réunion doon doon waxtaan ak staffam mais li mu xam ne bi mu génnee Assane mooy que motukaay yi ñu war a jël ci wàllu combat bi yépp surtout ci wàllu secrétaire nañ ko jël ba mu mat sëkk. dëgg la may Babacar démb la Gaston demoon arène nationale ba def fa benn réunion ak ñi muy bokkal organisation bi. Mm-hmm. bu ñu génnee léegi li mu wax nee nañ ay centaine de policiers ak ay sapeurs li ci toll ni quatre cent. Mm-hmm. dinañ ko mobiliser uniquement pour que le jour J ñu sécurité nit ñi fay ñëw. Mm-hmm. waaye wax na également que ne ci division bi nee na 2 moom mooy diviser ak ITV. ñaari chaînes yooyu ñoom ñooy jox seen seen TV signal bi pour ñu diviser waaye moom li ci la seen Euh, presse yi nee na kenn du xamul kenn ku ciy am accréditation. waaw mi ngi noonu moo moo tëgg journée mooy xool lu ko neex mu mu def ko loolu kenn mënu ko ci planète. waaw nag comme presse bi dañuy ci public ci promotion combat bi ku fi dégg combat presse bi seen YouTube yi yaakaar naa li lay promouvoir beneen moyen wala beneen presse boo xam ne ni dina la euh, may publicité boobu seen YouTube di la ko may amul. Mm, dëgg la Assane. moo ngi noonu nag borom bis bi moom moom bisam nu ko neex la koy séddalee kon nañ ko nangoo lekk ba léegi. Euh, prince dañ jëm borom PABC events la mu taxawal mooy combat chat bu Boy Bambara ak ki nga xam ne mooy mboot Modou Dia bu Yoof le 11 juillet incha allah Mbaye Babacar. le 11 juillet boobu lay war a am cat cat cat cat bu Boy Bambara ak Modou Dia bu Yoof nekk combat jànq nag Assane nekk combat ba nga xam ne amateurs yi ñu ngi koy xaar ñu ngi koy bàyyi xel nar a nekk combat bu neex incha allah prince moom moo ko taxawal. dëgg la Mbaye Babacar combat boobu prince moom moo ko taxawal ñu war a dox ci diggante Thiat ak Modou Dia bu Yoff loolu nag mi ngi ko prévoir bi nag combat bu la comme ni nga ko waxee combat jànq la ndax ñaari mbër yëpp ma nga noonu nag la jaajëfal bu baax asal waalo loolu moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaar yi may looy tàggatoo wee waaw xanaa jaajëfal ñëpp rek dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm ci seen beneen revue de la ren fii ci Leewtoo TV. Assane Waalo mais Mbacké di la remercier di remercier waa Linguère yaa seen Fall Bilal ak équipe bu technique euh, Man Pro euh, Ousmane nag équipe technique Leewtoo yëpp di leen remercier di leen jox dig daje ba suba jàmm incha allah. ma nga noonu nag loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi di leen kontaanee bu baax am naa seen cofeel bu bëree bëri bëri maa ngi gis commentaire yi ne sant leen gërëm sama équipe bi ah. loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.